dañoo ñëwoon pour déjà wax ak moom explique ko situation wu épidémie fii si Touba xam ngeen euh, Touba dëkk bu mag la dëkk bu am kilifa la dëkk boo xamante ne lépp lu fi am rek doo bàyyi kilifa gi mu yëge ko si rajo danga nga war a donc jël sa tànk ñëw expliqué ko yëpp si détails yi mën na am détails yoo xamante ne ñun rek ñoo ko mun a expliqué moo tax ñëw set si ko waxtaan nañu ak moom ministre de l'intérieur la àndaloon mais mu euh, comprendre ñu bu baax a baax euh, xam effectivement situation bi mais aussi ñu euh, wax ne suñu cër mooy que ñu talal ko loxo mu ñaanal ñu mais non seulement ñu talal ko loxo mu ñaanal ñu mais ñu fexe ba jël taataan ay conseil am parce que moom moo ñu war a xam dëkk bi ba lépp lu ñuy def rek si wàllu santé si wàllu prévention si wàllu information ñu mën a sukkandiku ko aussi si conseil yooyu bon nag en résumé dañoo ñëw pour rendre compte situation épidémiologique bi ki xamante ne moom moom dëkk bi mais aussi taataan ñaan ak ay conseils pour xool naka la ñuy ànde pour euh, donc fexe ba euh, vraiment épidémie bi ñu mën ko stopper fii si Touba. wax naa leen sànq ne def nañ ak moom vraiment un tour d'horizon pour expliquer nu mu demee euh, am na benn comité boo xamante ne ñu ngi koy woowee comité national de gestion des épidémies ñoom def nañ seen rapport bu ñu. jëbbal gouvernement bi danañu xool nag euh, vraiment loolu lan moo si suñu cër ak nag la ñuy taxawee mais euh, am na loo xamante ne moom euh, yaakaar naa ne donc il faut pas que ñu tel si sore nañu bàyyi rek ba li ñu war a def di def aussi. dañoo song mbiru épidémie boo xamante ne feebar bu bees la xamaguñu traitement bi prise en charge ba nekk fan fexe nañ ba tey fii si Daaru Marnaan képp koo xamante ne donc euh, détecté nañ la nga positif rek teg nañ fay jumtukaay ak ay spécialistes yoo xamante dañ lay jël en charge ni ñu lay jëlee en charge fan noonu lay jëlee en charge en fii donc euh, yaakaar naa ne donc euh, problème boobu vraiment pas un problème qui se pose fi gën a am solo mooy ñu góorgóorlu si prévention bi li gën a am solo moo ñu góorgóorlu pour képp koo xamante ne am na njort rek ñu mën la war la mën a mettre en quarantaine nga bañ génn fa nga nekk pour nga bañ a wàll keneen fexe ba képp ku ñu selul ba ne am na ñu mën la jël yóbbu la traité la fexe ba vraiment donc population yi comprendre que ne am na acte yoo xamante ne dañ ko war a donc bàyyi mooy nuyoo bu bëri bi saafantoo bu bëri bi et cetera parce que dañoo nekk si période de épidémie ku nekk rek danga war a aar sa bopp aar sa morom aar sa njaboot loolu moo ëpp solo. waaw xam nga euh, loolu moom yaakaar naa ne euh, mbiru mbiru mbiru société la ak euh, mbiru population la souvent bu mbir amee. da ngay wax ne ça n'arrive qu'aux autres da nga naan ñeneen ñi rek la mën a dal yow moom concerné am la bis bu la dalee da ngay xam ne mbir mi am na réellement kon nag li may euh, wax askan bi rek mooy que ne donc feebar bu fi nekk la am bu baax a baax actuellement am na fukki nit ak ñeent yoo xamante ne juróom-ñeent pardon yoo xam ne ñu ngi leen di traité pour que donc ñu wér am na si koo xamante ne seet nañ ko presque wér na fekk suba danañ def dernier contrôle ñu génne ko mais feebar bu fi nekk la boo xamante ne vraiment donc dañ si war a taxaw waruñ ko caaxaane li gën a doog doy waar si feebar bi mooy wallaate bi dafa gaaw parce que bu ngeen seetloo depuis que donc euh, suñu mbokk boobu jógee Italie yëg si ba léegi ay fan la ñetti fan la mat mais bu ngeen seetloo wàll na déjà fukki nit ak juróom benn ak moom muy fukki nit ak juróom ñaar loolu mooy wane ne bu ko ñu bëri amee mais bon wàllante bi dana donc law dëkk bi boo xamante ne law bu métti lay doon moo tax donc ñun ñi war leen wax la ne vraiment lu am la lu ñu war a taxaw la lu ñu war a lënkaloo la lu ñu war a booloo la pour donc euh, jéem ko xeex